Farba Ngom miy wax ak yéen ci bureau euh, Amadou Ba la veille du parrainage may dem ko cour de justice de la CEDEAO invité ma moo ni ma avion lañ la war a luyeel laaj leen ko lu tax mu koy wax nga ñëw fekk man man bindoon naa ba def ab demande d'autorisation d'absence joxe procuration mu ne ma sa présence ci salle bi leneen la da nga faa war a teew booba de ñoom ñemewuñu opposition yi man lañ bëgg ma teew génnee leen ci xeex bi bu paree nag ñoom comme li may wax ñu saaga ma wax ma li leen neex te du ma seen morom baat boobu laa wax li ma war a préciser yàgg foofu ndax dégg naa kuy wax naan géwël nekkuma ci logique boobu ndax dem na bay def parallèle di tudd Alaaji Mansour Alaaji Mansour sama baay xam na li nu seeba comment respecté la ku ma séqal li may séq ak suma baay bi muy dund moom la Farba laa wax géwal la waru garam du fekk am am mbir mu yàqu mu koy gën a yàq daa war a dox tànk yoo xam ne yi moom laa gis président Youssou Ndour dox ko gise nanu ndax démb laa ko waroon def jot ko waxtaan nanu xamal naa ko ni ko may naa ko lu bëri ci fi ma bëggoon a àgg du ma fa àgg ci wax waaye mënuma bañ a dajeeg Sénégal yi ndax sama honneur moom lañu ñu sama bàyyi nee na bu nit toogee ci penc mi torox la ko tontu ci penc mi bul wax ci sama morom la wala du sama morom dafa am lu mu teg sama kaw loo xam ne amul ma war a taxaw ak Sénégalais yi ni leen moom moomu kët jàpp ne milliardaire la te ma waxoon ni 2009 muy Farba Ngom bi ñuy dem élection locale waxoon na ni amul lu mu campagne benn Mercedes am lay jaay campagne tabax na kër goo xam ne estimé un milliard mi ngi yor ay centaine de di ko traversé frontières yi mi ngi ci milliards yu muy joxe fu mu jóge c'est une question importante bu dee moom dafa may jox ci milliards yooyu mën na ci tontu kañ la ma ci doon jox kuy témoin ak lu tax mu ma koy jox ndax man nekkuma ci benn marché état joxuma benn marché dilaluma kenn ci marché directeur yi muy wax pression awma directeur boo xam ne maa ngi dem ci yow di ci wut ñaari direction laa am laa xam ci Sénégal bu port ak COSEC en tant que président chambre de commerce damaa am ñoom lien de travail port quatre ans yi jaaruma fa ab Ablaye Diop ba mu fa nekkee ba jóge faak léegi benn yoon laa fa dugg parce que dañu am rapport en tant que union des chambres de commerce ak COSEC ministère yi nekk Sénégal ministère des finances laa fi xam bu may dugg intérieur danaa fa dugg mais Aliou Ngouye ba mu fa ñëwee léegi sama tànk jaaru fa maa nga fu mujj ci Abdoulaye Daouda Diallo ministère de l'agriculture dama leen di lebal jiw comme tous les opérateurs semenciers kon danaa fa dem mais amul beneen ministère kon ban ban euh, chantage lay teg kuma koy teg xawma ma fii ci Sénégal benn ministre boo xam ne dana maye cinq cent mille xaw ma leen kon yooyu wax wax bu yàqul boo xam ne jarul di wax ndax man sama ñaq ci lay dund loolu wax naa ko ku mu neex ku mu naqare 21 ans ci laa am million bu ma moom ça je le dis te nit ñi xam nañ loolu intercolore di 44 96 maa ko jëkk a jënd jaay ko as jaxate mu jaay ko bàcc ñaar transitaire bu ngeen ko ko waxee dana leen ko wax moom laa campagne conseil régional ñaari kat kon di ma wax oto am naa ko ak awuma ko loolu amaluma njariñ beneen bi mu war a clair mooy far digganteem ak yàlla na wax ak yéen kañ la ma doon jox fukki nag yi ak ku ko doon indi danaa wax ni day 2012 yónnee na ma ñaari nag ci cant bi jox ko ku ñuy wax fuuta mi ngi ci dara man ngeen a dem laaj ma ko la woo naa ko bërki dem mu ne ah xëy na ko man ne ko kon yow da nga ma yoral fukki nag ndax ba neen daf ma ko doon jox ba samay cant genn gu mu ñëwit amul xanaa bañ nekkee opposition te xaw ma leer na ndax 2009 2010 2011 ñaanal naa Macky Sall jàppale ko muy ñëw Touba di présider cant gi ndax 2005 la cant gi tàmbali cant gi première année ñetti nag lañ ci rey xanaa kon damaa jaay juróom-ñaari nag yi juróom-ñaari nag yi maa ngi ko comment maa ngi ko limité ci 2008 première ndaje bi Aïda Mbodj wax nañ ci moo ko présidé en 2005 moo ñëw présidé ko mosuma gisub dërëmam bu ci dem ndax at moomu at yooyu farba amul xar mu mën a joxe bu dee dëgg la xaar amu ko bay am ay nag yu muy joxe mbaa bu ko amoon it du am yéene ci kon nit ñi waruñu naxante leven li ma koy posé te moo ma gën a ñor mooy enveloppe yi mu ma doon jox ci kan la jóge ci ministre la wala ku yor ay marché mais du ma nangu nit kuñ naan yow am nga ay courtage ay un milliard ci ay terrain wala ay un milliard ci ab gaz mu naan jox na ma mel ne daf may taxal kañ la ma jox loolu il faut mu leeral ko bu dul loolu danaa saisir la justice